bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta alcaliimu alhakiim allahuma callimna maa yanfacunaa wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu topp ci waxtaanu fajar wi ci waxtu wi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di Mouhamed Diaw Diallo mbokk yi sant yàlla buur bi tabaraka wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu sant yàlla buur subhaanahu wa taala may xéewal ba nekk fa moom te mu doon xéewalu nelaw mu ngi wax ci alquraanul karim ci ay sar yu fasante ko waaye ci ay béréb yu fasante ko mu di ñu wax ne wa in tauddu nicmatallahi tax tuxsuha bu dee da fi nekk naan da di géema lim yeleen yàlla xéewal du ngeen ko mus matal du ngeen ko mus dajal ba koy bu ñu taxawee tuuti ci aaya bi dinañu gis ne buur yàlla dafa jël xéewal ya nekk fa moom mu idaafa ko ci boppam mu tuddee ko nicmatallah waaw nicmatallah jël xéewal bi moomale ko boppam joxu ko kenn waxut ne kenn na fi nekk ki leen di xéewalal waaye xéewal bi da ko idaafa ci jëmmam subhaanahu wa taala moo tax mu ne ñu wa in tauddu bu dee dangeen fi nekk naan di ngeen di gémma lim nicmatallahi xéewalu yàlla yi mu ne ñu laa tax suuxa du ngeen ko musa matal du ngeen ko musa dajal ba tax na xéewal yooyu gën a bari ni ñu gën a sakkane kenn mënu koo lim waaye kenn mënu koo peek tamit ba tax na daa bëgg saa su ne bu ñu xéewalee xéewal ya nekk fa moom toujours lañu war mooy dañ ko war a sant te cant woowu noonu ñu di ko sant yokku ko dara ñàkk kaa tamit wàññiwu ko dara waaye xanaa rek dafa fekk ne moo ñu ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante xéwal yi ma yokk kon jaam ba dëkkee di sant yàlla sant yàlla boobu ngay sant yow jaam bi yokkul di yàlla dara dara dara be dara booloo jeex waaye ñàkk kaa tamit xamal ne a ah, wàññiwu ko dara tamit dafa fekk ne rek moo la jox permission bu toll ni mu ne la la in shakartum la azidannakum mu ngeen sante ma te moone ne loolu mu ne ñu wa aataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi laa tuxsuuhaa inna al la zalumun kaffaar te suratul ibrahim buur yàlla ne wa aataakum mooy buur bi nga xamante ne moo ñu jox min kulli ma saaltumuux lépp li ngeen ko laaj yàlla mu ne ñoo yàlla mooy buur ba leen jox li ngeen ko ñaan lépp li ngeen soxla xataa lu ñu soxlawul sax yàlla jox nañu ko te ñaanuñu ko ko te xam na ci xam-xamam yu leer ne dinañu ko soxla te dinañ ko musa soxla jox nañu ko waaw mu teg si ne wa in tauddu bu dee dangeen di géem lim di géem a xayma di konte nicmatallahi xéewalu yàlla yi gis nga fii yàlla dafa jël xéewal yi moomale ko boppam kon keneen ku doomu aadama bi di sant ci xéewal ya nga nekkee danga weddi xéewalu yàlla yi ndax xéewal bi nekkul ci loxo kenn ci loxo yàlla nekk ci nguuram lañu nekk moo tax mu jël xéewal ba doomu aadama bi di nekkee moo idaafa ko ci boppam mu moomale ko boppam mu ne ñu wa inta taxuddu bu dee da ngeen di géema lim nicmatallahi xéewalu yàlla yi laa tuxsuuha du ngeen ko musa matal dungeen ko musa peeg du ngeen ko musa xayma waaw dangeen du am jot ba ngeen di lim xéewalu yàlla yi waaye li fi nekk rek innal insaana naka doomu aadama de daarangoo ñaari mbir ya aaya bi bugg a joxoñ fii bu njëkk bi mooy innal insaana doomu aadama bi kat la zalumun dadi aji tooñ boppam waaye kafaar dadi kiy weddi xéwalu yàlla yi ba nuñ ne doomu aadama bi dadi kay tooñ boppam saasu ne du ñàkk mu am ki laaj loolu nu mu mën a nekke ñu ne nekkin ba doomu aadama bi di tooñ boppam saa su ne te aaya bi junj ko sànq moo ne yàlla ne nga sant ma nga bañ di ko sant yaa ngi tooñ sa bopp yàlla ne ñaan ma ma may la nga bañ di ñaan yàlla ngay ñaan leneen ci xëytu tooñaange la bokk yow doomu aadama bi na ngay tooñe sa bopp bokk na ci na doomu aadama bi di tooñ boppam mooy muy wàcc la ko yàlla santaane muy bàyyi lépp lu ko yàlla sant di géema sore santaane yi xëytu tooñ sa bopp la bu dee danga bay sa bopp ak sa sago seytaane wommat la jëmale la ci tere yi ba léegi xëytu tooñ xëytu tooñaange la bu doomu aadama bi di tooñ boppam waaye kafaar dadi kiy weddi njekk ba ko yàlla teral yàlla ne yow doomu aadama bi yow laa teral ci sama kaw mboolem mbindaafoon yi may naa la teraanga ci biir géej gi ak ci biti jéeri ji may naa la teraanga ci suuf si ak ci jaww ji tàggatal naa la ngay ngéneel yoo mënuta lim ngir sa dund bi mun a ñoŋ waaye mane la fii mooy frontière bi boo bàyyee sa bopp ak sa sago bi seytaane wommat la jéggiloo la frontière bi ñu ne kooku bokk na ci doomu aadama yi weddi xeetu njekk ya ko yàlla ciral subhaanahu wa mbokk yi Rewmi FM 97.5 xam ngeen ne waxtu bi bu jotaan dina del sek yéen ñu daldi am ay waxtaan yoo xamante ne jullit bi mënees na ci njëriñu waaye xataa ku dul jullit sax bu la mbaax ñoree war nga ci war a mën a njëriñu incha allah su ko defee ñu gis ne xéewal yooyu bokk na ci ñu ne doy na rekk la yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa mu nekk uh, rahmatan lil aalamin mu nekk yonent bi nga xamante ne mooy yonent bi yàlla yónni ngir li yuxrija annaasa min adulumaati ila nuur ngir mu dindi doomu aadama yi ci lindemaayu bokkaale yàlla jëmale leen ci wiitaayu tawxiidullah wiit leeru wiital yàlla ngir mu jëlee doomu aadama yi ci lindemaayu bokkaale yàlla jëmale leen ci leeraayu wiital yàlla yonent boobu di ar mustafa mustapha sallallahu alayhi moom la buur yàlla tabaraka wa taala garantil mu daldi dëgëral kàddoom yu sell yooyu mu baaxee ay kàddu yu neex a jëflante ay kàddu yoo xamante ne doomu aadama bi mënees na ko war a mën a jëfandikoo ci sa giiru dund mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xam ngeen ne waxtu bi ñu weesu ñu ngi àndoon nag yéen ci classe bi nga xamante ne mooy fa ñu nekk ak suñu tuut tànk yi ñuy fas yéene waxtaan ak ñoom lenn ci la nga xamante ne mooy la yenentu bi sallallahu alayhi wa sallama baaxee askan bi ngir jullit bi noonu la war a yare doomam waaye noonu nga war a nampatale sa doom tàggat ko ci li nga xamante ne mooy njàngaleem sallallahu alayhi wa sallam jamono bi nga xamante ne xale bi mu ngi jëfandikoo lépp loo xamante ne day tàbbi ci biiram la si yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa sallam léegi ci bunt boobu lañu ñu bëgg a yéen ci mbaaxu yàlla ak waxtu su néew yu ñu cëralee su ko defee ñu bokk njëriñuñu ci la yonent bi jàngale jamono bu jullit bi di jëfandikoo ñam rawatina tuut tànk bi nga xamante ne dafa gane si àddina waaye ndegem ci keppaaru ñaari way yàlla ca la war a màggee ca la war a mën a meññee ca la war a mën a xàmmee ca la war a mën a ràññee kon yonent bi préparé na ñaari waajur yooyu ne leen na ngeen jàngal seen doom la nga xamante ni mooy lañ leen andil fii ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ñu nit ñu bëgg ko fas yéene ko wéttalantik yéen kon nañ leen dugg ci classe ba nga xamante ne fa la ñuy amee dars suñu mbind ñeenteelu mbind bi nga xamante ne ca la ñu war a fas yéene waxtaan ak suñu élèves yi moo ne xadiisun laa yaakulanna ahadukum bi shimaalihi wala yashrabu biha fa inna sheytaana yaakulu bi shimaalihi wa biha rawahu muslim mbokk yi jànn jàmmi yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot bopp xadis bi mooy al aklu bi yaddil yumna al aklu bil yaddil ñuy lekkee suñu loxo ndeyjoor buntu bay wax ne yow jullit bi danga war a lekke sa loxo ndeyjoor sa loxo droite sa loxo ndeyjoor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ngalla waaye laa yaakulanna ahadakum bi shimaalihi bu fi kenn ci yéen di lekkee loxo càmmoñam laa yaakulanna ahadakum bi bu fi kenn ci yéen di lekkee loxo càmmoñam wala bi biha bu ko kenn di naanee tamit moom loxo càmmoñ fa inna sheytaana yaakulu bi shimaalihi wa yashrabu biha ndax sheytaane de càmmoñ lay lekkee waaye càmmoñ lay naane hadis bi muslim moo ko solo mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yenn ak seeni njaboot xadis bi bokk na ci lañ ci war a mën a manqué comme yiw waaye bokk na ci lañ ci war a mën a jëree comme faida bari nañu lool waaye ñu tënk ko rekk ñu daldi jàll ci beneen bunt xadis bi day wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne bu fi kenn ci yéen di lekkee loxo càmmoñam bu fi kenn di naanee loxo càmmoñam mooy yonent bi lu tax nga ne bu fi kenn di lekke càmmoñ walla mu di ko naane yonent bi ne ñoo fa inna sheytaane yaakulu bi shimaalihi wa yashrabu biha moo ne de moom day lekkee loxo càmmuñam waaye loxo càmmuñam lay naane ba tax na képp kuy jullit yonent bi nee na waroo topp jeego seytaan ñu ne kan mooy seytaane ñu ne seytaane moom lañu yàlla wax ne ca suratu yaasin alam ahadi ilaykum yaa bani aadam an laa taabudu sheytaana innahu lakum aduwun mubin wa nibuduuni hada siraatun mustaqim yàlla buur bi tabaraka wa taala daf ñu ne xanaa dëxalantoo mag yow doomu aadama te dëxalante bi mooy lan mooy taabudu sheytaan bu leen jaamu sheytaane bulen ko kampaañal bu leen ko topp bu leen nekk ci lenn lu mu nekk soro ko nangeen ko isolé nangeen ko jàmb bu leen ko faale bu leen nekk ci lu mu nekk waaw bur yàlla nañu ci suratu yaasin ci aaya bi nga xamante ne mooy fu ñu bur yàlla tabaraka wa taala di baaxee ci aaya bi mu ne ñu ci aaya bi moo daf ñu ne alam ahadi ilaykum xanaa dexalantoo mag yéen doomu aadama yi moo tax mu ne ñu yaa bani aadam yéen doomu aadama yi xanaa dex mag yéen ne leen an laa taabudu buleen bu leen jaamu cheytaane bu ko topp bu ko wuyu ca lam leen di woo bu leen ko faale ci lam leen di xoy moo ne innahu lakum aduwun mubin moom seytaane de da noon bu bir nooneel bu am ci yéen leer na nañ yàlla ne nag wa ni'buduni na ngeen ma jaamu man yàlla topp sama ndigle yonentu bi sallallahu alayhi waaw wa ni'buduuni na ngeen ma jaamu wa ni'buduuni na ngeen ma topp topp ndigalu sama yenentu bi te mooy alquraan ak sunna yenentu bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ne haada siraatum mustaqim li ma leen wax nii de mooy yoon bu jub bi nga xamante ne ku ko topp jub ku ci ngoy texe ku ko jàmbu torox ku ko wéccoog leneen pert sallallahu alayhi wa mooy ki ñu andil lañu buur yàlla tabaraka wa taala baaxee ni kon mbokk yi bu dee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ne bu fi kenn ci yéen di lekkee càmmoñ bu fi kenn di naanee càmmoñ ñàkkul mu am ñu taxaw di ko laaj lu tax nga ne bu kenn kenn lekkee càmmoñ walla bu ko kenn naane ñàkkut moo am ñàkk laaj mu ne leen ndax seytaane di seeni noon moom kat càmmoñ lay lekkee waaye càmmoñ lay naane ba tax na conséquence ba fa nekk ak lépp loo xamante ne danger la yonent mi ko yàlla xamal sallallahu alayhi wa sallam te mu baaxee ñu ko ku ko weddi boo demee xool la tax yénantu bi nañu bu kenn ci yéen di lekkee càmmoñ wala bu kenn ci yéen di naanee càmmoñ di gis lekkee càmmoñ walla naanee càmmoñ danger ba fa nekk dinga ko gis kon lañu yonent bi ne bu ko kenn def ba ko mooy lañu war ba tax na buur yàlla daldi garanti kàddu boobu di yonent bi sallallahu alayhi baaxee askan bi mu ne ñu wa ma ataakum fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu leen yonent dikkee jël leen ko waaye lépp lum leen teree bay leen ko waaw kon yonent bu diglee jëfe moo ci war a tegu bu teree bay moo ci war a tegu bu diglee samaan wa a moom lañ ci war a teg bu teree loolu lañ ci war a mën a teg mooy bay moo ne buur yàlla tabaaraka wa taala bi léegi la mu jox yonent bi sallallahu alayhi wa moone moo bokk na ci ay jumtukaay yoo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi nii duñu ko baaxee ci ay ahadis yu fasante ko moone ci xadisu abdullahi bun mas'ud radiyallahu anhu qaal sa'altu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayul aamaali ahabu ila allah qaal alsalaatu ala waqtiha qultu summa ay qaal summa birru lwalidain summa qultu ay qaal ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بحنا ولو استر قال حدثت بحنا متفق عليه mbokk yi yàlla jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot saxaabi bi ñu naan abdullahi bun mas'ud radiallahu anhu yal na ko buur yàlla gërëm moo ñu ne qaal daf ne sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam maa masalaaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow mi yàlla yónni ayul aamaali ahabu ila allah ana wan jëf moo gën a neex yàlla ana ban jëf la yàlla gën sopp fa moom mbokk yi fii nañ leen fi taxaw tuuti rekk ñu ne jëf bu yàlla sopp bu ko doomu aadama bi xamee dafa wara takk ndiggam xar tànku tubéyam laxasaayu nekk ci jëf jooju ba keroog muy dajek boromam ndekete ndekete yoo bu ñu ko yonent bi waxutoon ñun ak jëf ba yàlla bëgg fuñ koy xamee nuñ koy xamee waaye ñaareel dañ ne bu for yombe sëgg jafe bu for yombe sëgg jafe waaw saa yu for yombee rek da ngay gis kuy tayal a sëgg ngir for loolu mu war a for yal na doon la koy njëriñ la muy for noonu yal na doon la koy njëriñ mbokk yi imagine leen saxaabi bi la mu laaj yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne ayul amali ahabbu ilallah ana ban jëf ci jëfi doomu aadama yi ba yàlla gën sopp fa moom mbokk yi lii bu ñu ko yenentu bi waxutoon képp ku ñuy coow ci suñu nitu àddina yi xamuñu ko mënuñoo wax lii kon yenentu bañ ñu ko wax yonent bañoo ko wax moo ko xam sallallahu alayhi wa te moo ne mooy jëf bu yàlla sopp fa moom saxaabi bi daf ne dama laaj yonent bi sallallahu sallam ma ne ko ayul amal ahabu ila ana wan jëf la yàlla sopp fa moom allahu akbar mbokk yi képp ko bëgg xam la yonent bi tontu saxaabi bi topp ñu ci waxtaanu fajar bi fii ci réew mi fm 97.5 ñu ànd ak yéen déglu la ko yonent bi tontu sallallahu alayhi wa sallam yi bokk na ci lu ko tubi tontu alayhi afdalu salaatu wa azka taslima mu ne ko qaal assalaatu ala waqtiha ngay julli ci njëlbeenu waxtoom jëf bu yàlla gën a sopp julli ci waxtoom ca kon yow jullit bi ndéem yaa ngi julli waxtuy julli ci waxtu bu njëkk ba xamal ne yaa ngi jëf-jëf bu noobul yaa ngi jëf-jëf bu yàlla sopp moom buur yàlla tabaraka wa taala ndax kim ñu yónni moo ñu ne ki ma yónni kat bokk na ci jëf yu ko gën a sopp ci jëfu doomu aadama yi bokk na jëf yu mu gën a sopp ci jëfu doomu aadama yi bokk na ci jëfu doomu aadama yi jëf bu mu gën a bëgg mooy jullit bi di joxe waxtuy julli ci njëlbeenu waxtu wa saxaabi bi continuer laaj ko mu ne ko gannaaw loolu ana ban jëf la yàlla ganu sopp ci jëfu doomu aadama bi qaal yonentu bi ne saxaabi bi ne birrul waalidayn topp si ngay topp sa ndigalu ñaari wayjur kon topp di wéy di xaarandi ndigiri ñaari waajur dafa bokk ci jëf yu yàlla gën sopp ci jëfu doomu aadama yi yonent bi moo ñu ko wax sallallahu alayhi wa ngay topp sa ndigali ñaari waajur sa ñaari waajur yi lépp luñ la nga gém si góor-góorlu nekk ci waaye lépp luñ la tere donte dafa dëppook sa bànneexu bakken nga géem a góor-góorlu sore ko geste boobu bu dee doom bi koy jëfee bu dee doom buy jëfee geste bi boo ko xamee ak boo ko xamul xamal ne yaa ngi jëf jëf ju noobul ba yàlla sopp fa moom saxaabi bi continuer ne yenentu bi ne summa qaala summa nee na yonent bi ne gannaaw loolu ana lan la yàlla gën sopp ci jëfu doomu aadama saxaabi bi laaj yonent bi summa qaal yonent bi daal ko laaj gannaaw topp sa ñaari wuyjur daal al jihaadu fi sabilillah nga taraxi laayoo takk sa ndigg dugg ci tooru xare bu dee jamonoy xare la waaye ndegem suñu jamono ji xare amatul li fi nekk mooy yow doomu aadama bi nga géem a góor góorlu lépp lu nga xamante ne war naa mën a yëkkati kalimatu laa ilaha illa allah muhammadun nga gëm si tënk sa bopp di ko promouvoir di ko supporter di ko campagnal moo xam ci sa alal la moo xam li ci sa bopp bi la comme xam-xam moo xam ci sa moyen bu munti doon na nga participer ci lépp loo xamante ne dina ñoŋal diini dina yëkkatil raaya diini islaam nga bokk ci ñuy promouvoir lépp luy mbiru diini islaam nga bañ a dumuyu fa ñuy toroxal diini nga bokk ci ñuy doyadal ñooñu diine mbokk yi lii lenn la ci waxtaanu fajar baleen réew mi fm 97.5 àndil waxtaan bi nag jeexut dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ndax ñooy joxe xibaar ñu ngi ni taxaw ñu fas yéene joxe xibaar ñu war leen jébbal béréb bi ñuy ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana allahumma ya rabbi aati nufuusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaaha fa nicmal mawla wa nicmal nasir allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih allahumma a'immatana wa wulaata umuurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan maa dahara minha wa maa batan amin ya rabbal alamin baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu